mbaa yéen a nga ca jàkkaarloo Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal ak député yi ci assemblée nationale boo sàggane daal du am déedéet bés bi le journée député Yewwi Askan Wi koy démb ñoo gonte jàkkaarloo tasul xabaar yi ngir léeral dëgg kon situation bi am daal ci assemblée ndax tayib dafa président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ak i naataangoom daal nee nañu jàkkaarloo Sonko député yi ci assemblée nationale daal mënta nekk mukk laa lay wax ndax règlement intérieur bu assemblée nationale kon la ñu falsifié tënkuwul ci yoon laa lay wax ni lii moo tax ba mu daal di ko Ousmane Sonko ci assemblée mën a antu ndax règlement intérieur bi fraude dëgg la wax kon atteinte bu grave la ci constitution bi lee bu Sénégal lii Abbas Fall ci bés bi journée danañu saisir premier ministre bu Sénégal bi di Ousmane Sonko comme niñ ko defoon Amadou Ba léegi nag moom Ousmane Sonko daal moo yor tëgal guyam mooy seet ndax dina dikk ci assemblée nationale ngir def DPG bi Cheikh Omar Sy député la woon ci assemblée nationale ci bés bi la journée DPG Ousmane Sonko bi nag moo war a jiitu dikk ministre des finances ci assemblée nationale ndax laataa ñuy ci wàllu orientation budgétaire bi moom premier politique mu war a def njëkk DPG ba noppi moom député ba woon daal yamu ca ndaxte nee na ci bés bi le jour assemblée nationale bi kon dee su ko mën a tas fii ak janvier wala février 2025 daal dikkakul ndaxte li tax dëgg nee na mooy vote budget bi ñu jàpp ci septembre gi daal lii daal moo ko waral sur quotidien premier ministre Sénégal Ousmane Sonko séekul ak député yi lée laaj tontu laa lay ni ndax muy déclaration politique générale bi lé di Sonko ci assemblée nationale Walf Fadjri ne waaye yeewi kay yénne nañu Ousmane Sonko jàkkaaroom ak député yi ndax laaj ak tontu daal du dox seen diggante ci jamono jëlee ndax te nee nañu daal mënta nekk suuswaa ne ñoom député yi kay ngir layoo ñàkk di Ousmane Sonko ci assemblée nationale nee nañu gi lée looloo tax daal ba seen xel talul ci diggu Ousmane Sonko ci assemblée nationale neel benn ndax règlement intérieur bi fi nekk tey ji ji te waa yeewi naan faux usage de faux moom la sukkandiku woon ci boppam woo Amadou Ba ci kanamu assemblée nationale ba noppi nag bëgg daanal nguuram gilee te loolee nag mu ngi amee woon fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2022 fàtte xaju fi yëgle kaay ñaar communiqué bu conseil des bi nga xam ne la ñu amaloon juróom fan ci weeru juin waxoon na ne premier ministre bu Sénégal bi di Ousmane Sonko ak gaayam kon ñoo ngay waaj dëgg dañu ko salfaañe te loolu na waar turbine yéene kaay ak laas ne la bi lee di Ousmane Sonko di ragal ci jàkkaarloom député yi lu jëm di ragal géej l'observateur ne député yi kay nee nañu kon jàkkaarloo Ousmane Sonko ak assemblée nationale daal du am ndax règlement bi ci boppam la ñu loolu moo tax bu ñu bëtal jàkkaarloo Ousmane Sonko ak député yi Babacar Gaye ne ak lu mënti am nga yëg nga ñàkk yëg moom premier ministre bi lee di Ousmane Sonko li war dëgg kay moom mu sàmm teg constitution bu Sénégal daal tënku ci yëgle kaay groupe Futurs Médias bi ne Ousmane Sonko ci diggante moral ak droit la nekk moom daal mooy seet ban la ciy tànn ci ñaari le Doudou Wade ci l'Observateur ne groupe parlementaire Yewwi Askan Wi le am na ñeenti fan ngir yoonal lépp leen naqari ci règlement intérieur bu Assemblée nationale bi le lii quotidien ne bu dee Ousmane Sonko bi le ci jalgati yoonu Sénégal dëgg la jëm ay waay lii tamit mbaa jàmm la critique yéene kaay bu weesoo jub jubal ak réew mi Diomaye Faye waxtu wi kay bëgg-bëggam dëgg nag mooy yaxanal koom-koomu mi jaare publique bi lee laas ne moom président kay bëgg-bëggam dëgg mooy tabaxaat souveraineté économique bu Sénégal gi lée ginnaaw ndaje gi ñu amal conseil des ministres démb rek daal la fësal bëgg-bëggam ci réewum Sénégal les économies Ousmane Sonko kay ak Diomaye kay ñoom ñaar ñëpp ci tàgg entreprise yi ci Sénégal daal lu ñu nekk bés bi la journée ginnaaw jàppante amoon ci bésu tabaski ci Médina Gounass lu ëpp téeméeri nit ñoom ñëpp ñu ci kaso bi lii laas ne téeméeri nit ak juróom cent milliards ci Sénébar kon la ñu taal jëppét def lépp doom ca tëngeej ginnaaw drogue ñu teg loxo ci réewum Sénégal vox sobi ne jéggi jo fall tekki na ay ndombo tànkam ci poste directrice promotion économie sociale solidaire ndaxte nee na damuy bañ dëgg moo ñu seppi loxoom ci ndab li bés bi le journée am na lu yee ci kër Moussa ginnaaw cooli cooli diggante QVS ak société nouvelle ville ndax muy cadastre bu Thiès kaa dëkk ñaari gaar di cadastre bu bu lii nag mooy effacé dëgg laa lay wax bi nga xam ne moo attribué cent dix hectares yi société ville ci département bu Mbour ndax QVC ci département bu Thiès la nekk lii a tax ba waa QVC kon ñoom ñëpp di dankaafu ak yëglu ci kanamu ministre de yoon bu Sénégal ginnaaw mesure bi nga xam ne kon gars jël nañ ko jëm ci seen mbir les suk benn waaye bu sol toni moom bëggoon xaru ci buntu palais bi niki démb ndaxte nee yaakaaram ci abonnement yoo xam ne ay retraité RTS ñoo ko yoroon lépp lu ñu nangu ba ci oto yi nga xam ne ay cadre RTS ñoo ko yoroon moom directeur général bu RTS bi kan nangu na lépp la wax ñu baaxu jëm ci lamb ja sunu lamb jox kàddu gi Ada Fass ginnaaw guy gi ni ki barke de moo njaay moom Ada Fass dem nag amal na open press am yàgg naa bëri poids lu nag guy gi daal du ko dina ko duma dina ko daan l'observateur ne ndaw si nag boo sagane dina def ci kasu bi giiru dundam ndax daa jàpp mi naanam dóor ko ba mu dee mais